coowal séddalek ceeb bi ma ngay gën di wéy file ci dëkk bu sell bii di Touba te ji nag jafe-jafe gu metti am ci Touba Mbusoobe di benn quartier boo xam ne mi ngi nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba foofee nag lu jëm ci wàllug séddalek ceeb beeg yu ni mel askan wi nga xam ne moo nekkee foofee rawatina kër regroupement chauffeur yi nga xam ne ñoo nekkee foofe ñoo am ak seetlu ci ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci ñu jàpp ne nag googale ceeb dañ koy yóbbu feneen Ibrahima Samb moo yoroon kàddu gi chef de seeni kër ñoom warul woon a am warul woon a am ci ceeb bi ndax ñooy chef de quartier yi bàjjanu bàjjanu gox yi bàjjanu gox yi ku ñëw fii dañ lay jox bàjjanu gox warul am ci ceeb bi parce que ñoom bokkuñu ci ceeb bi comme nag léegi bàjjanu gox yi dañuy am chef de quartier yi di am chef de village bi tiim leen ñuy am chef de village bi gisuñu ko mu am mais ñun mën nañoo yaakaar ni am na parce que bu amutoon du leen nangu loolu léegi nag li ci am ba am mooy fi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa chef de quartier yooyu démb wër nañ leen lañ ñu wax dara mënuñu ko ca dégg mooy seeni baay fi nekk ak seen i yaay rafetal leen lii day jeex ñoo ko bokk ñoo ko bokk mais ñi ko moom nañ ko dem ñun bu ñu taxawee fii di wax di yuuxu du pour ñun ñun yàlla seede na ni luñ ci am dañ koy joxe ñun soxla wuñu ko mais ñi ko soxla aajo woo ko bu ñu añee duñu reer nga di leen ci yoon di leen yërëm su fekkente ni ponk lu mugum jëmm ñëw na ni maa la yilif lu ñëw mu aagi moo ko bu fekkee as gor nga war ngaa bañ sëriñ bi dañoo waxoon ni population bi ku am problème demal ki sa chef de quartier loolu mooy ndigal li soo bu munta saafaraw nga dem ci chef de village a yuuxoo kan lañ leen war a booleel. gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne rek tàmbali woon na am ba nu fësal ko muy góor jigéen mag ndaw ñi nga xam ne ñoo nekkee foofe daal di jongaru bureau commission bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ko séddale gi ñoom itam lenn rek la ñuy sàkku muy ñu leeral li nga xam ne moo di séddale ceeb bi nga xam ne danoo jàpp ne ak mbuuxum da cee am. li dul dëgg du yoon mooy ñun bu ñu nekkee ci Mbusoobe ñun ñëpp ñu dëkk fi doon ay borom kër ne nii kenn ku ci nekk su suñuy séddale dara ci Mbusoobe waa Mbusoobe gépp ñoo ci war a am dañoo war a yemale ñëpp waaye suñu gisee chef de quartier boo xam ni day bind doomam bind ay jabaram bind ay xaritam bind ku ko neex jox ko loolu te ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon ay borom kër joxuñu ñu dara loolu duñu d'accord loolu parce que loolu jaarut aw yoon. dañoo gis ay nit lañu di yore sañuy bët di xool ana sañuy xel di gis ñoom ndax li tax séddale bi awul ci yoon ñoom seeni jabar. ak seeni doom ak ñi leen neex lañ koy jox te man mii de wax ak yow nii fi mu toll nii wéruma wér bu nga xam ne bii dégg nga maam kii laa yor carte égalité de chance moom laa yor bi ma ñëwee tàllal ko dama ne dañ ni loolu xamuñu ko bind nañu ñi ñuy bind ba pare te ñëpp ñi ngi gis seen bët même reçu yi maanaam pour nga jot reçu maanaam dañu da am loo leen di jox ñu génneel la sa reçu. maa ngi bokk ci quartier Modou Awa Sall. waaw. léegi noo dend sax sorewunu waaye mbooleem ñama dendal foofee amu ci kenn ku ko am ci ceeb bi te ceeb bi moo daaw sàll moomu ko abbas moomu ko ceeb bi askan wee ko moom te biñ tëjee ñëpp ñëpp lañ tëj ceeb bi nag bu guddee bu guddee dañu ciy fab di yóbbuwaat bu nit nee wàcc nañu bu ñu dee ba ci ba pare dañuy retourné waat di kaat ci guddi gi di jëlaat ci ceeb bi def lu neex loolu nag mat naa jublu yéen ñii nga xam ne nag yéen moom ceeb bi moom Modou Awa Sall moomu ko bu ko moomoon du ngeen ci amub liibar Abbas moomu ko bu ko moomoon du ngeen ci amub liibar taxaw leen ñu jox leen ceeb bi mu jeexee ku ne xam ne jeex na mu dem waaye bu leen leen ko wàccal fii ñu di ko file dañuy fon gannaaw nag ba ñu ko fësalee ay xët-xët amoon ci seen diggante Abbas Ndiaye di chef de village bu Touba bi di ci ànd ay leeral ñun dañ fay nekk ñu teg na ko ñu chef de village gouvernement bi laaj ma man Seydou Lass mu ne ma ñaata kër ñoo na ci quartier Mbusoobe man leen 800 yi tegal na juróom-ñetti junni yi tegal ñoo ko ne ci habitat ñu toog ab diir ñu ñëw fii ni góor gouvernement bi dafay indi ceeb waaye Mbusoobe nangu nu bindal 400 personnes andil ma ko 400 personnes laa wax ku ne ci bourse bi bu ko bind ndax bourse yi bourse bi tànn nañ ci lu mat 500 400 ak 500 900 la ma woo samay délégué ñuy juróom-benn délégué kenn ku ne ma jox la 66 personnes 66 nit euh, kii 66 euh, ni la 400 lañ fi indi yéen na ku ne jël 66 nga dem ci sa se nga tànn fa ñu ko ña ko yelloon nga indi ko. benn bàjjenu gox ñëwut fii ni nii fii maa ko loolu sañuñ ko man dele man ñi ma yilif laa tànn loo tànn nañ andil ma kenn ku ne 66 nit andi nañ ma ko ma boole ko joxe kële ne benn bàjjenu gox andi tànn na fi kenn amul 978 ci ay personnes nit nit ku ne ñaari saako la am loolu yomb naa xam 978 lañ indi fii kenn ku ne ñaari saako la am noonu daal lañu indi transport bi 500 yi tegal la waaw man maa ko fay ku ñuy wax ku ñuy wax xaadim silla moo yoroon opération bi ba mu ne ba ba mu ne bagage yaa ngi ci héliport ba waaye yéen a koy fay ma leen ñun daal pour ñoo fay ab transport ñun ma bu buñ ko bëgg fay du ñëw ñu wutal ma ay ay ay ay camion ak manœuvre yi koy fay muy 500 yi tegal daanaka mën na 600000. 550 bi tagal na moom laa fay mu ñëw man maa ko fayal sama bopp mu ñëw fii ba mu ñëwee fii ñu ne nañu commencé ba dañuy commencé liggéey bi man leen comme que loolu am na ku jël sa ceeb da nga jox 1000 francs ba sama transport ñëw te yëmul ci transport bi dong ndax ñii fi liggéey commission bi ñëw dama leen jox dama leen jox añ maa leen toggal añ ak ndox ataay lépp ak ak gaasal bi gaasal bi def tamit bu du fet cinq man maa leen ko jox loolu mooy génn ci mille francs yi laaj man nag li six cent six cent mille yu manqué yi ma joxe bët bu set naa laaj mill francs ku jël la joxo mille francs li ma ci fere su àggee ñu continuer ci joxe bi la ma la ma fere ci nit ñi moom nag weddi tuuma jàpp ne nag lii nga xam ne dana ko lal ci ndoddam dara du ci dëgg waaye itam dikkaat ci anam gi nga xam ne noonu lañ doon séddale ceeb gi bu dee lu jëm ci wàllu transport bi nga xam ne doon nañ ko wax moom kay xam le ne daanaka lu ëpp téeméeri junni def na ko ci te moom moo ko fayal boppam waaye nag muy xam le ne ñu bëri li ñuy wax am na ci loo xam ne réer nañ ci mbir ndax loolee bokk na ci li nga xam ne ñii liggéey ci fànn googee ci lañ leen di fay ba léegi rek jafe gu jëm ci wàllu séddale bi ñu koy nemmeeku nag fasantikoo ci dëkk bu sell bi di Touba ci diggante askan wi ak ñi ñu ko dénk